alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain awnaka ya muinu bika nastain wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal cheikh Muhammadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal mboolem kilifa diine yi ak mboolem jullit yépp di nuyu bokki Touba Fall yépp noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara bu baax nuyu kilifay dëkk bi yépp di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo sëriñ Mahmoudan nu jàllale nu ko ci mbooleen njabootu dëkk bi yépp di nuyu ak ziyaara njabootu Cheikhul Khadim gi nekk ci jataay bi di leen joxit seeni wàccuwaay Serigne Khadim Mbacké ibnu sëriñ abdul baqi moom Cheikh sàmba noo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Cheikh Abdou Latif Mbakke moom sëriñ Modou Fati Xari sëriñ Muntaqa Mbakke moom Cheikh Abdul Baqi sëriñ Modou Mbakke moom sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom sëriñ Fati Xari kilifa yooyu yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara it bu baax a baax di leen jox seeni wàccuwaay di sant yàlla mi nu may ba ñu dellu si jataay bii ci dëkk bi ci bis bu màgg bi di nuyu mbooleem kilifa yi fi nekk yépp nuyu lu xasaa yi di fi nekk di ko tàmbalee ci sëriñ Daawuda Fall di ko ziyaara bu baax di ñaan yàlla suñu boroom mu dolli ko dëgëral di nuyu sëñ Mandaak mi daaneel kàddoom léegi waaye suñu rakk Serigne Saliou Seck moom it noo koy nuyu bu baax te di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla Serigne Cheikh Anta Samb moo ngi leen di nuyu bu baax bëgg Saliou bu nuyu nañu leen nuyu Alaaji Jaaja noo ngi lay nuyu bu baax di la doon lay ñaanal yàlla sunu borom gën laa yàggal di sant yàlla mi ñu defalaat ci kattanam ba ñuy ñëwaat ci bis bii waaye nag di jël nuyoo yooyu yépp ak ziyaar yooyu yépp di ko teg ci loxo Cheikh Ahmadul Bachir Mbacke moom Cheikh Mahmadul Makhtar moom Serigne Cheikh Aw Balla moom maam Thierno borom Daaru Serigne Bachir mi nga xam ne sunu cër la ci béréb bi di sunu sëriñ te mu yàgg bëgg sunu teewaay ci béréb bi yàlla dogal ko daaw. te la ko jiitu daana nu ñëw fekke si lenn ci cérémonie bi ci kër Serigne Dame yàlla dogal tey jii ak daaw mu bokk ak jataay bii nuy Serigne Cheikh Ndiaye mi nga xam ne moom lañuy ñu a ñëw këram ci dëkk bi yaakaar naa benn bis kon lépp mi ngi jaar ci Serigne Bachirou nu di ko ñaanal yàlla yàlla suñu borom def ko mag te kattanal ko nuy way juróom mu baax bi nga xam ne it moom it mu ngi ci kër gi di soxna kumba ko ñaanal yàlla sunu boroom gën koo kattanal guddi gi ñu nekk dafay guddi gi nga xam ne dafay guddi gu làmboo ngëneel yu bari du guddi goo xam ne ci la gën gi mbindeef feeñ di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di royteefu mbooleem mbindeef yépp di koo xam ne it sëriñ tuubaa jàngal nanu ko ci ay meloom jàngal nu ko ci ay jëfam te lépp feeñ ci biir ay mbindam nga xam ne xasaayid yi nuy jàng ci gàmmu gi yépp yonent bi sallallahu alayhi wa la ci tagg lépp ay jikkoom la ci wone bunt bi sëñ Mandaak daaneele léegi ci muqaddamatul amdaax fi mazayal miftaax tënk na ca loo xam ne rekk doy na ca sëkk mu xamle ne maqaamaatu xayril xalq an xayri rabbihi mugayyabatun kon kat ndake yonent bi sallallahu alayhi wa sallama maqaamam faddu na ci kuy kulul yàlla borom bi subhanahu wa wax na ca it ne mooy koo xam ne mbindeef mës mel ni moom wax na it ne mbindeef duutu mel ni moom mooy ki nga xam ne Sëriñ Tuubaa nee na ci darajaam la yàllay tawe ci la yërmande yaatoo ci la sàkki asamaan ak suuf mooy ki nga xam ne it ba ko yàlla yónni dane ko dama laa ni nga yërmande ñeel mboolem mbindeef yépp waaye nga nekk Bachir ci képp koo xam ne tege na ci ak jub te jaar ca yoon wa waaye nekk Nadir ci képp koo xam ne wàcc na yoon wa nunguwu ca jaar kon aji béggale la ci képp ku tege ci ak njub waaye aji xuppe la ci képp koo xam ne safaanoo na ak njub koo ki nga xam ne bëgg ko mooy xuutul xuluba gidaul arwaax xam nga nit bu dee xéewlu la muy jëfandikoo dafay dundal yaram waaye ruux la koy dundal mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi moo tax dañuy wax ne képp ku yàlla tabbal ci sa xol bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne yaa ngi dund ci ak mucc ak ak texe waaye wala ayaadu billah ku mu nekkul ci sa xol nag yaa ngi dund ci géeju lëndëm yaa ngi dund di dox waaye ña lay jàppe aji dee mooy ki nga xam ne it moom sallallahu alayhi wa sallama la sunu boroom jagleel mbooleem ngëneel yoo xam ne ña jëkk mësuñu ko am te ñiy mujj duñu ko am waxtu wu nekk mooy féete ca kaw ndax moom la yàlla jiital ci ñépp moo tax Sëriñ Tuubaa nee na képp ku sikk sakk ci ne yonent bi sallallahu alayhi moo jiitu nee na aji ku réer nga waaye ku dof nga waaye ku texee di ku torox nga kon ki yàlla dimbale it ne yonent bi la yàlla teg ci kanam ñépp te Sëriñ Tuubaa wax na jiitu gi yonent bi jiitu sallallahu alayhi wa sallama ñépp danañ ko gise ci man képp ku am ay gët di xool boo xoolee ci man xaadimu rasul da nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi mooy ki jiitu loolu moo tax ba mu jógee di wax dakkantelewuñ ko dara lu dul kii liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi sallam te yonent bi day ku bari woon ñu koy liggéeyal la waaye tey jii ci àdduna bi foo ne xaddiimi rasul ñépp dem ci Serigne tubax si Amadou Bamba ngir liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko ko ba tax mu ràññi ko ci mu nekk ka ca gën a kawe ci ni koy ñi koy liggéeyal defe naa li mu tagg yonent bi it sallallahu alayhi wa sallama kenn mësta ta yëkkati xalimaam tagge yonent bi ni ko sëriñ Tuubaa tagge waaye tagg ko lu toll ni li mu ko tagg guddi gii nu nekk tey bu nu doon baagante ci digg yetti xasiidaam yi rek muqaddamatul amdaax jazbul quluub mawaahibu naafi xaju ci sax diirub dund mënees na koy jàngat benn par benn mu di nu jàngal kan mooy yonent bi sallallahu alayhi jàng gi tax nga xam lan mooy jikkoom waaye tax nga xam ban dayoo la am xam wàccuwaay bi ko suñu borom jox ci kanam bindeef yépp boo ko bëggee xam boo jàngee xasida yi xasidaam yi dem ko ci xam guddi gii nag Serigne da caa wax ci jëf bu wax ne guddi ganek jamonoog yonent bi sallallahu alayhi wa mooy guddi far bakkaar kon dañ ciy far bakkaar mooy guddik far coona mooy guddi laab mooy goog mucc mooy goog ko mooy guddi gu barkeel gu màgg gu tedd fa borom ba subhanahu wa te dundal ko kat dafay dundal ab xol waaye day aar ak njaboot kon mel na ni képp ku bëgg a xam dayob lan mooy gàmm delluwaatal ci mbindum Serigne Touba te Serigne waxal na boppam ne sa borom jox na ma ci gàmm loo xam ne wàllu yu yëpp a ko doon wër amuñu ko mën la ko yàlla jox lii xaada rabbi fii rabiil awwali maaraamahu walam yanal kulla wali nee na wàll yépp a ko bëggoon waaye man mii la ko yàlla jox man xaadimu rasul kon loolu wane na ko ci melokaanam ci bëgg gàmmo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom léppam yonent bi la dafa wax ne yaabudu kullillaah rabbal alamin inshaahu bi xidmati lhaadi l amin sama lépp day jaamu yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye jëmee ko nag ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne daf daan jege boromam saa yu noppee ci farataam ak ci sunnaam ci bari tagg yonent bi sallallahu alayhi wa bari julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba jël ak dundam seddale ko ñaari xaaj nga xam ne bu weeru rajab teroo wala weeru muharram tam diw tam xarit ba ba muy tabbiwaat ca rajab lépp lu mbind da koy jëmee ci tagg yonent bi sallallahu alayhi waaye bu rajab teroo ba muy dellu ci digg wa lépp lu muy bind da koy jëme ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax mu di ko kañ ci wax ne mooy ki moom samay tagg moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci samay suba ak ci samay ngoon di julli ci alayhi salaatu wasalaam waaye it di ko tagg moo tax mu wax ne madaxtu xayral xalq min al muharrami ila intisaafi al aami da takarrumi lahu salaati wa salaami min rajab li xatmi dil xijjati neamal muntajab moom day li mu lay wax ni mu koy waxe bu koy nasoj di ko bind noonu la koy bindee moo boo def boo demee ci xasidaam googu di bu naafi'a mu ne la lahum tidaaxi baada najaaxi xinda sabaaxi wa fi lmasaa'i salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta ma attisaa'i alayhi salla rabbun ajalla fa faaxa kulla fi l adqiyaa'i kon boole na julli gi mu wax ne da koy julli ci yonent bi waaye tagg gi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg googu mu koy tagg it jaayante gu rëy gim jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi ci sax ci di ko liggéeyal wax na nawaytu kaw nii abdallahi mumtasila li amri taarika na yin ay suma xotimam yéene naa bis ni tey doon jaamu yàlla buy jaamu boromam di jëfe lépp lu muy digle waaye bàyyi lépp loo xam ne borom bi subhanahu wa taala da koo tere mustamsikan bi rasulillahi sayidina muhammadin man mahal azana wal wajama waaye nag fan laa koy jaare mooy jàpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la yàlla yëkkati moo far lépp loo xam ne ay njaqare la waaye ay tiit ay ak tiitaange la bihi taallaqtu fi sirrin wa fi alanin anayatin min ilahi zaxzaxal alama sëriñ tuba nen ci yonent bi laa aju kon sëñ tuba kenn du ko tuumaal ci ne dafa woote dara lu mooy lim waxal boppam mooy jaam buy jaamu yàlla boo xam ne dafa aju ci yonent bi alayhi salaatu salaam muy wasilaam téere bii di téereem yàlla bi di alquran di ab téereem kaaba gi di xiblaam amul beneen soppantal ci lenn lu dul bu doon wone boppam danaan man kii laa doon jaam buy jaamu yàlla ca na ko yàlla bëggee boo noppee ci farata tege ci sunna si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nag war na ci man waxtu wu nekk ma di ko tagg di ko liggéeyee liggéey boo xam ne dafay gàcceel ña jiitu woon di ko liggéeyal waaye nag tagg gi ma koy tagg léegi-léegi dégg ku ne diw de dafa tagg yonent bi ba da koo peeg mel ni ku ko jeexal ci tagg Sëriñ Tuubaa na déedéet lakkin wan a dax am da i shoara wan yel asabi an massin li jar mi sama Sëriñ Tuubaa ne na taxaw ci suuf jël sa baaraam di laal asamaan ni mu jafee nee na noonu la jafe tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na lu tax nee na boroomam subhaanahu wa taala moo ko jëkk a tagg kon ab jaam lott na ci jot maqaamam moo tax mu ne tëgguma ko ngir bëgg a wax ay dara darajaam tëgguma ko ngir bëgg a feeñee la nëbbu ci moom waaye dama ko bëgg a tagg ngir sopp gu ma ko sopp moom yi salaatu wasalaam bëgg googuma ko bëgg it moo tax saa yu weeru gàmmu ma saa teew Serigne Touba day jël xaside yoo xam ne da koy bind mu nekk xaside gàmmu boo seetloo ñeenti xasidaam a ngi nii yoo xam ne bii di raiya bii di taiya te mooy hamad suleyman bi sarfi almaziyat bii di nuuniya mi qad taaba qalbiya lamma llahu sallamani bii di miimiya di alqalbu min ya fi salim xat salima xasidaam yooyu muy tënk nga xam ne xasiday tuubaa la ba mu koy bind xasida gii di hamad suleyman nga xam ne sëñ bi wone na ci melokaanu adduna ni mel ak doye dik adduna ak wan gum wan ginnaaw adduna mal boroomam ak ni adduna mën a yàqale nit sëñ Tuba andi na ko ci wane jigéen xóorul ayni ya seen tolluwaay ak cër yu rëy yenu am doora wane nag andi yonent bi alayhi salaatu salaam aju gi aju ci moom ak jox gi mu ko jox boppam jàngale yonent bi salaatu salaam ci melo yo gën a mat boo demee ci biir xasida googu danga fekk sëriñ bi di ko wane na mu gën a mate nga xam ne xasida goo xam ne ak jubloom ci yàlla ci ak ubudiyaam waaye jëm ci rasulullahi salaatu salaam ca ataaluq gi nga xam ne def na ko ci alayhi salaatu salaam waaye dëddu gi mu dëddu adduna xaside gi bokk yi sëñ Tuubaa ngi ko binde ci kër yi Chouaïb fi ñuy wax daaru naan muy daaru rahman muy Ahmad Souleymane nga xam ne sëñ bi wane na ci kiimaan bu yéeme keroog bi mu ko taalifee ba noppi ba wane jigéenul xooru ay ni ak cër yu rëy yenu am ak nañu mel am na ci mag ñi ko ne ko mbakke ndax kum neex man ngaa muñ jigéeni àdduna ñii doo leen denc mu ne ko bala soobee mu ne ko ndax man na maa gis ñële nga may wax ngay misaal sëñ bi ne ko bu la soobee nga xam ne sëñ bi wan na ko jigéenul xulul ayni yooyu moo tax mu muñ mbooleem jigéeni adduna yi ba ni mu fi bàyyi ko dencul te mag ñi àndoon na sëriñ Tuubaa ci la bokk boo demee ci xasida googu sëñ Tuubaa dafay tuutal adduna jàppe ko jigéen tasxiir salman def ko suleyman moo tax lu mat di bàyyi xel la hamat suleyman bi sarfi an maziyat ab كيما تقول الزمام للرزيات أبدد لتسداد قلبي حسن بهجتها ووجد لي الهدايا بالمبرات mu ne kat dafa woo àdduna ngir bëgg a soppi ay cadd nga yu ne ci man ak i ngëneel ngir bëgg a wommat sama bakkan jëme ko ci loo xam ne ay texee di képp la saa yu ñëwee ci yow nag dalay xoymat ab taar ak melowu mat mu ngi ciy wane ñàkk solo àdduna nee na ngir li tas daada ngir mu rëbbu sama xol bii taar bi ne ci adduna waaye nag fa mucc ahda ila ma la yutqiluni bihi jinaanan xawat xuuran wax fiyaati saa yu ñëwee nag damay wane ginnaaw dëgmal yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye ca biir xasida ga nag lay wax ne aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu maa lasi xafuhu shuxli wa haajaati Sëriñ Tuba nee na jox naa yàlla sama bopp waaye jaare ko nag ci ki nga xam ne boo ma doon laaj lan mooy sa bëgg sëñ Tuubaa lan mooy sa yitte nee na mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa yonent bi rek lay roy ab yëngoom dalam lépp ci roy alayhi salatu wasalaam la jëm aslamtu nafsi li rabbin la shabiha lahu maa allasi hubbuhu axza maramati sëriñ Tuubaa nee na sama bëgg mooy li gën a kawe ci samay càkkutéef boo ma doon laaj looy bëgg looy wër sëriñ Tuubaa nee li gën a kawe ci li ma bëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne nag mboolem aslam ci wax bu ci nekk yàlla lay jox boppam waaye bu cay dellu day wax ne maa ngi dellu ca ka nga xam ne mooy royukaay ba ka nga xam ne lam indi mooy li gën ka nga xam ne aw yoonam mooy yoon wi gën ci yoon yi te mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam aslamtu lillahi rabbil alamina bi ma muhammadin xayli man waala wa man yaati jox naa yàlla sama bopp waaye jaar ci yonent bi nga xam ne xayru man yaati moo gën ci ñiy ñëw wa man waala ak ña way ñépp ki ci gën mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent boobu gis nga noonu mu ko waxee ci xasida ak Ahmad Souleymane boo demee ci xasida xattaaba noonu la ko waxee xattaaba qalbiya lamma allahu sallamani min al ida wa bi xatti dan bi akramani al ida al aada u daaxiliya fii sëñ Tuubaa mi ngi fiy junj ñeenti noon yi doomu aadama yi mooy bakkan bànneex àdduna seytaane mu ne sama xel dal na sama xol sedd na lamallaahu sallamani ba ma yàlla muccalee ne la aada ci noonu yi nga xam ne xasida gi Tuubaa la ko binde kon tabbeeguloon ci géej gi waaye ma ngay wax ne maa ngi sant yàlla ba ma muccalee ci ñeenti noon yi te mooy bakkan bànneex adduna ak seytaane te ñeenti noon yi képp ku ci muccul sabu dox jëm ci yàlla mënta mat te mënta rafet ndax bakkan dafay digle lu ñaaw bànneex day réelalaate adduna day wor seytaane yi day wor kon ñeent yooyu fekk jéggiwu ko mënoo yegg feneen loolu moo waral ñuy indi li ñuy tudd ak wax ruuxiya moo tax loo bari bari xam-xam te amoo tarbiya doo lambooy teggin doo mel na nga war a mel foo mën a bokk te amoo xam amoo wax ya mënoo mel noonu moo tax Serigne Touba bi mu ñëwee ay kaang la fi fekk ay fóore la fi fekk ay doomi soxna la fi fekk waaye dana ku bëgg a dem ci yàlla ñëwal ñu dem kon defaree googu fekk nit ki amagu rek. mënta egg ci yàlla mënta doon dëgg-dëgg nit ku ñu soxla te defe naa bu dee loolu bët bu sën nga gis nit géeju ci xam-xam lool waaye bu jëfee nga ne accam boo waxee it nga ne accam kon amut ak tarbiyatu wax yi tarbiya googu nag mooy tax nit ma a mucc ci noon yooyu Serigne Touba nag kan moo ko tarbiya nee na mooy yàlla borom bi subhanahu wa taala rabbani naafiyul wahaabu ashkuruhu maa dumtu hayyan bi qawli alhamdulillahi noone mu waxee ci xasida googu it la wax ci ne jëmale naa lépp sama boroom mi nga xam ne amul am ndend waaye boole ko ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxit ne wajjahtu wajhi li rabbin jalla an masalin bi xidmatin libna abdillahi si sunani bi xidmatin libna abdillahi jaliba ma nuti wa dafia ma nukfa min almihani fa kullu man qassahu albaari bi xidmatihi fala yulaaqi suwa albushra walam yahuni Sëriñ Tuba nen sama lépp jox naa ko yàlla mi nga xam ne jalla an masal kawe na ci am am ndend ak nuroo waale waaye ci lan laa ko ko joxe bi xidmatin libna abdullahi mooy liggéeyal doomi abdullahi ja mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam daana ci liggéeyal doomi abdullahi jooje nga xam ne mooy jañ lépp lu ñuy ragal dinu ñoddi lépp lu ñuy bëgg lépp luy waral coona kanu koy tàggaleel mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ku yàlla jagleel nag ba nga jóg di ko liggéeyal doo dajeeg lu mooy mbégte tey kenn du la bëccingal kenn du la doy dal sëriñ Tuubaa na ku bëgg a taqoog mbégte mu sax dak del liggéeyal rasulullah ku bañ ko la bëccingal doye dal la nee na del liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa man takun bi rasulillahi xidmatuhu musaahiba sidqi wal ixlaasi wal xasan fala yaqaafu wala yarjul wara zamana idil wiqaayatu tuxni anil kinani nee na képp ku yàlla jagleel ba ngay liggéey rasulullah sallallahu alayhi waaye nga teg ko ci lan nag mu saaxiba sidqi wal ixlaasi wal xasan nga boole ci ak dëggal ak sellal ak rafetal nee na kat bu boobaa bul ragal walla ngay yaakaar benn yoon ndax lu tax ngay war a ragal lépp lu lay lool kala koy fegal mooy yàlla waaye lépp looy bëgg di ko xëcc kala koy ñoddil mooy borom bi subhanahu wa taala kon ku bëgg a ci kaaraange gu wóor sëriñ Tuubaa neen na del liggéeyal yonent bi waaye dee ko boole nag sedd sidq wal ixlaas wal xasan na nga cay dëggal na nga cay sellal moo ne lii mu wax nii gis naa maam Balla Mbakke maam Mor Jaara boroom saam bi muy tagg sëñ Tuubaa moom it da koy tagg ba yàgg mu ne képp ku taxaw ci buntu néeg sëñ Tuubaa waaye mu saaxibu siddiq wal ixlaas wal xasan googu it mu si ne nga boole ci dëggal ak sellal nee na lépp looy yóotu da nga ko jot kon da ngay dégg ne ku bëgg am denc yàlla fu mu ko denc da dëggal da nga sellal da rafetal te defe naa mboolem ku ma sa bàyyi sab dëkk bàyyi say bokk toppi Serigne Touba ànd ak yéen a ju sell ba ngay dem de mën lañ laa béccingal mën nañ laa reetaan mën na ne dangaa dof waaye bu sëñ bi noppee ci yow ba na la dellul yaay doon lamp fa nga bàyyi koo woon yaay doon sangu fa nga bàyyi koo woon yaay leeral gox ba nga bàyyi koo woon te yaay xettali gox ba nga bàyyi koo woon te loolu defe naa ku ñëw fii da nga mën a xam loolu xam na la jonjoo ak Serigne Touba di jariñ Serigne Touba wax na yonent bi salaahu salaam nag awma génn bëgg man Serigne Touba lu mooy loy ko lay set li yel yow ba xaajaatun uammiluha si waxti fay ka xafal xalbi wal badan bokk yi moo tax ku dul gëstu sëñ Touba ku dul gëstu sëñ Touba ku ci war a màndu nga ndax fi nga koy attee ak fi sëñ bi nekk daa wuute gis nga jigéen bu ko boroom këram bëggee la muy seere ca moom ak lam koy waxal wala jigéen ju bëgg boroom këram la muy wax ca moom man nga caa bañ a atte sax ne noona la mel ak cofee la ma ko ci yóbbu waaye Serigne Touba boo bëggee xam nan la mel da ngay xool lim bind xool ñim defar mboolem kum defar foo dem mën ngaa atte diine mu makaarimul axlaaq bu ñuy tudd moom ngay làmboo waaye mboolem mbind mit boo ko jàngee noo war a mel ci baax ak jikko ju sell noonu ngay làmboo moom nee na amul genn bëgg lu may roy rasulullah kon xanaa kenn lu ne sëñ Touba léegi-léegi nga dégg ñu ne dañoo jël mu murid yi dañoo jël yonent bi jël sëñ Touba teg ci kaw yonent bi déedéet xamuñu li ñuy wax sëriñ Touba waxul loolu te nu it defuñu noonu ndax sëriñ Touba moo wax ne man ci ron dëggul dalli rasulullahi laa teg sama blex bu sëñ bi nekkee ci ron dëggul dalli rasulullah kon nun fan la ñuy nekk moom la jox cër boo xam ne boo mësaa tudd turam lépp lu mu jàpp da koy bàyyi boo ko tuddee ci lépp loo ko sàkk ci moom mu defal la loola te xoolal bu koy tagg ni mu koy tagge ci ngay xam cër bi mu ko jox mu ne man nan lay taggee kenn koo xam ne lamboo na melokaan woo xam ne lammiñu woy ñaw ya ak way yeewu ya lottu nañ ci man koo tagg aw kayfa usni ala fardin hawa xuluqan an mat ay xat wanat lu sun sa yi ña gën a yeewu gën a ñaw daq dégg te mën a tagg Sëriñ Tuubaa nee seeni làmmiñ lottu na ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne mooy koo xam ne xoolal fii nim ko indee wa huwa lasi sumtuhu fikrun wa mantiquhu dikrun wa xidmatuhu shukrun ala alminani Sëriñ Tuubaa nee yonent bi boo ko fekkee mu noppi xamal na ma ngay xalam boroom sumtuhu fikru saa yu ne teg ma ngay xalaat yàlla wa mantiquhu saa yu waxee dikru nag tudd yàlla la waxit mu shukuru kon liggéey liggéeyal ko ak cant la mu ne mooy koo xam ne it wal ilmu atqanahu wa sa'yu ahsanahu kama lahum qaadatil xayraatu bi rasani mooy koo xam ne dafa ñaw ci xam-xam waaye jëf ci rafet lool waaye wal qalbu muqtaribun wal juudu munsakibun wal jismu muntasibun fil fardi wa sunani Sëriñ Tuubaa nee na borom guddi gii boo ko bëggee xam al qalbu muqtaribun xol bu jege yàlla borom bi subhanahu wa taala xolam bi foo ko fekk mi ngi ci yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye mooy koo xam wal juudu munsakibun mooy borom tab goo xam ne day sottiku Serigne Touba nee na asamaan su xottiku di sotti la muy bari bari rasulullah yi ko gën a tabe wala juddu musul diyeemi waame wuy walwali rasulullah yi ko gën a tabe moo tax mu ne mooy ki nga xam ne wal juudu mun sakibu wal gis mu mun tasibun fil fardi wa sunani waaye jëmmi rasulullah yi Serigne Touba nee na ci farata ak sunna rek ca la nekk mu ne mooy koo xam ne kon melakaan yu mat yooyu yëpp la ko yàlla jagleel waaye xayrun mawaddatuhu bayrun adawatuhu mayrun madihatuhu li mu fiqil fitani nee na képp koo xam ne waayoo nga ak rasulullahi aw yiwa lay topp foo jëm waaye ku noonu rasulullahi nag ci coono rek ngay dëkk mu ne ko yow nag tagg yii ma la tagg yii laa ci yaakaar wa bimtidaika arju hahuna wa gada fawzan wa ribohan wa ridwanan yuqarribuni wal amn min kulli cheyin dimnahu dararun wa sitru wa nasr fi ahli wa fi watani tagg gii ma la tagg de maa ngi ci yaakaar ndimbalul yàlla akuk tonewu waaye di ko yaakaar ngërëmam ak jege yàlla borom bi subhanahu wa taala moom laa ci yaakaar kon gis nga Serigne tuuba ni muy wanee yonent bi mu ne nabiyun rasulun xad nafa kulla batilin fa matxu nabii lillahi lil yawm man hayyu Serigne Touba nee na yonent boobu kat moo daq lépp luy ay neen nee na tagg yonent bi yàlla bii tey jii mooy sama yoon man boo ma doon laaj lan mooy sow yoon Serigne Touba neena mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na moo tax mu ne chakartuhu isxassanii bi xidmatin maaxisanii saa xidmatin fi allani lahu wa fakka sant naa ko ba mu jagleel ba mu ma jagleelee may ki koy liggéeyal xasidaa ngi nii goo xam ne gu siiw la goo xam ne bari na ñu koy jàng ñu bari di ko mokkal waaye buñ ko settantalee déggal ni ci Serigne Touba tagg yonent bi te mooy xasida lam yaxlu mislahu bikk lam yabdu mislul Mustafa Muhammad sirran wa jëhran fii baraya samadi nee na mës feeñ kat moo mës feeñ ku mel ni Mustafa mooy ka nga xam ne moom li Yàlla tànn mooy Muhammad sirran wa jëhran ci lu wér lu bir ak ci lu nëbbu ci mbindeef yi ku mel noonu yonent bi ku mel ni yonent bi yàlla mësu ko feeñal mu ne yaquudu bi zahiri wal batini man ataahu lillahi fi kulli zaman képp kuy topp ku ko topp daf lay wommat jëmale ci yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne liggéeyal ko nag lii la ma jural man Serigne Touba xidmatuhu anni l uyuba adhabat wal istiqamatan wa safwan wa habat Serigne Touba nee na liggéey rasulullaay moo ma tàggalee ki ayib moo tax aw ma benn ayib aw ma benn gàkk aw ma benn fot man xaadimu rasul tey nag moo ma womatal ak sell moo ma womatal ak jub moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tubaa nee na kii di yonent bi inna nabiyana rasul ahmad qaddamahu man laa yazaalu zaman sëriñ tubaa nee na boroom guddi gii yàlla mi dul dañ di kilifa moo ko jiital ci kaw ñépp lil mustafa ma lam yakun wala yakun li gayrihi mi man lahu kun fa yakun sëriñ tubaa nee na boroom guddi gii di rasulullahi am na loo xam ne kenn mësu koo am te kenn duutu ko am mu ne xaasa nabi la maa laa yaalamuhu ila alladi lawlahu wa qalamuhu nee na yonent bi lamboo na loo xam ne ku dul yàlla borom bi subhanahu wa taala xamoo Moustapha mu ne qaddama xayra al mursalina al mursali ala al jamii wa axfaftuhu rusuli nee na yàlla jiital na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jiital na ko mu jiitu mboolem sang sëpp moom alayhi salatu salaam mu ne yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam it mboolem ñëwëy ak ñi ñëw ak ñooñ jamono ñépp ndëggu tànkam ma ngi ko teg ca kaw seeni doq moom rasulullah xaddama ahmada ala riqaabi man madaw wa man yaati wa man fi zaman ñëwey ñi fi ne ñi war a ñëw ëllëg ñépp sëriñ Tuubaa nee na borom guddi gi moo leen jiitu nabiyina ahmadu maa danaahu abdun la da baaqin sëriñ Tuubaa na benn jaam du jege borom guddi gi di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne basharani maa rida muhammadun salla wa sallama alayhi samadu bégal na ma boole ko ngërëm borom guddi gii di rasulullahi salaa sallam mu ne man raama fi lxalq nadira ahmada ajazahu man la yazaalu samada Sëriñ Tuubaa ne koo dajeel mu ne damay wër ku mel ni rasulullahi nee na nee ko noppalul ku mel ni Moustapha mënta am Sëriñ Tuubaa nee na faaqa nabiyuna rasuluna al bashar wal jinna wal malaka daa lana bushar nee na rasulullahi sunu yonent bii nee na kawe na jinne kawe na malaayika kawe na mboolem mbindeef yëpp muhammadun salla wa sallama alqadim alayhi fi lxisbi siyaadatu mooy ki nga xam ne moo yayoo ak cang gu sax dakk moom alayhi salaatu wasalaam sëriñ tuba nee na falaahu jumlatal kiraami thabata bi ahmadillazil jawaab asbata nee na texeeg sang sépp mi ngi feeñe ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ahmadil muxtaari fadlunam yura li xayrihi wa li siwaahu lan yura Sëriñ Tuba nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day lamboo na ngëneel yoo xam ne kenn amu ko te kenn dutu ko am mu ne yaqul ummati wa xayruhu yaqul nafsi nabiyuna la daa xayrul uqul nee na mu demee bu bis penc képp ko yàlla ba sa yónni da nga naan saa bopp laa tal waaye kan mooy wax sama xeet nee na mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne bu ëllëgee buñ jëlee siraat gàcc ko ci jahannama sawara jahannama di battarñiku siraat di battarñiku yonent bi day taxaw naan rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim yàlla muccalal sama xeet yàlla muccalal sama xeet nee na tiitaange dana gaar ñëpp ba ku naan sama bopp laa tal waaye rasulullahi danaan man sama xeet laa tal Sëriñ Tuubaa nee man raama fi daarayni mithlahu ajas anhu wala yaraahu wal waadu najas ku sakku tey ak ëllëg ku mel ni rasulullahi nee na doo ko gis nee na sabata anna allaha xaaliqun siwa wal kawnu kulluhu lahu wa ma hawa asbata rabbul xalqi anda ahmada alayhi taslima wa faaqan xumada yàlla mi nga xam ne mooy kenn mooy créateur bi nga xam ne moo formé lépp moo taxawal lépp moo saxal ne rasulullahi ku mel ni moom amut Sëriñ Tuubaa nee na matxu nabi zil mazayal maaxi axna ani siyuufi war rimaaxi nee na tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma gën a doy man ci ay xeej ak i jees yi moo tax Serigne Touba nee na mës sa yor benn gànnaay di jàmmaarloo ki noonam waaye xalimaam mooy gànnaayam nee na xubbu rasulillahi wa sahbil azwat li xayri ma yusuuni saaxal xusuut Serigne Touba nee na bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg ay saxaabaam wammatal na ma mbooleem ak baax waaye ay noon taggale na ma moom way keñaan ak lor yi ne ci iñaan yàlla dox na sama diggante moom sëriñ tubaax xoolal li wax ci borom guddi gi salli ala babil huda naa ilmada muulin nada laysil ida maahi rada babil ula wal karrami bokk yi bayitam wii buñ ko génne woon yóbbu ko ci àll am moom la ko tu dajale ñi nga xam ne ahlul fasaha yeeg ahlul balaaxa yi taggkati yonent bi gaa yi mën a woy mën a ràbbale ay mbir amuk dégg nga jël bayit wi ñu teg ko danañ ko jàngat ay ati ati at te leerug maanaam bayit yu dégg seeni xol jafe salli ala babil huda jullil xoola fu ko tudde fii babil huda naa il mada muuli nada lépp tur yonent bi lay wax buntub jub kii tëbbe ay may ki nga xam ne mooy sotti ay xéewal lay si ki nga xam ne mooy gaynde ci biiri noonam maaxi rada ki dàq alkande baabil ula wal karrami buntu tedd nga ak ngëneel ak kawe mooy rasulullah wa salliman ala al amin daaka al makiinu wal matiin daaka al mujiir bisa sana waxtarimi kon xanaa mën na gàmmoo moom de te xam na ni ñuy gàmmoo te xam ni muy kañe ki ni gàmmool di rasulullahi salaa sallam daaka alwaxiidu walmajid wa huwa almabarru wal axiid man bi istiqaamatin yaquud ila aljinaani man aam képp ku gumba képp ko xamul fooy jaar képp ko xamul yoon wa boo toppee rasulullahi moo lay wammat jëmale ci ak jub moo lay wonit ngëneelul yàlla moo lay wonit tedd nga am sëriñ nee na koo ko bëgg boo ko bëggee xam mooy yonente noflaay ba boo ko bëggee xam mooy borom texe ga mooy borom fasaxa ga boo ko bëggee xam nee na kooka mooy ka yàlla jiital tànn ko ci lépp lu mën a mat waaye mooy ki nga xam ne yow julli ci moom salli ala sayyidina waliyuna xudwatuna xabibina shafiina wa alihi wa sallimi nee na mooy suñu royteef waaye mooy suñu soppe mooy ki ñuy xettali salli ala al muaddabi dil xurmati al muaddab képp ku am yar baa nga am teggin rasulullah yi moo la koppale Sëriñ Tuubaa nee na guddi ga mu rañaanee ba dajeeg mboolem yonent yi moo leen jàngal teggini jaamu yàlla moo ëppoon ñëpp ay teggin ma Moustapha ëppoon ñëpp kersa moom alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ne it salli ala baabi naim saaka siraatul mustaqim muhammadin xayril anim wa alihi wa sallimi nee na na nga julli ci baabu naim buntub xéewal mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam salli ala izil arab wa daaka kaashiful kurab nee na na nga julli ci tedd ngay arab yi waaye kooku mooy kaashiful kurab ku jàq baa nga tiit boo ñëwee fi rasulullahi sa njàqare dem kooku mooy bishrun yu li baakin kooku mooy musqin li haakin wa sinidaai képp ku mas a jàq mooy muskin li shaakin boo amee njàqare ñëw fi moom taggu moom boo dee jooy ñëw fi moom booy dellu bég saa yooy waxee moom mu déglu la moom alayhi salaatu wasalaam salli ala almaahil wakiil wal mutawakkilul kafiil na julli ci ka doyloo boroomam ka doy sëkk nekk wéeruwaay ba te mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam muy borom guddi gi Sëriñ Tuba nee na lil muntaqa qallil salaatan bi salaam kama ilayhi xutta afdalal kalaam maanaam li mu taggee yonent bi waxuma la nit ku ñuul waaye nit ku weex mosu koo tagge rasulullah ña daqoon a tagg yonente bi dangay dem ci Kaab ibnu Zuhayr wala nga dem ci Hassan ibnu Sabit te Serigne Touba nee na gërëm loo naa yàlla gërëm rasulullah ci tagg rasulullah raw naa ci Kaab raw naa ci Hassan lim tagg yonente bi kenn taggagu ko bu sallallahu alayhi wa sallam tagg ko ci qualité tagg ko ci quantité ak fan ko ko taggee nag gis nga xaside yi ñuy jàng yu ci bari yeesalaat na ko te ba mu koy yeesal ca ca géej gi la nekk gàmma day jot du am lu mu jox du mu joxe du am ku ko wër du am ku mu nekkal waaye xalimaam lay sëpp di gàmmo mooy di tagg yenent bi sallallahu alayhi léegi-léegi mu jógal boppam gañaa yu ba dëgër di bàggante di jàng xaside yi loolu moo tax xaside yi jàng ko ngëneelam kenn xamul nu mu toll maam yi ñii toog Cheikh Massamba Mbacké Serigne Cheikh Thioro mu baax ma bi mu génnee àdduna sëñ Touba Cheikh Massamba la yebaloon moo demoon Ndar ba sëñ bi ne nañ ko fa denc bu ëllëgee mu dimbale waa ndar ba sëñ ma Massamba àndee kuréel yi ñuy jàng xasida yi loolu sogee ne gouverneur général ba mu am lu mu bëggoon a def sëñ Massamba daa dil si sëñ Tuubaa di ko nettali na ko ma Massamba rasulullah yi ñëw fii ne ma neel ma Massamba feek mi ngi jàng xasida yi du ko jàngalu du am gàcce ak adduna du am gàcce ak alaxira te xasida yi buñ ko yëkkatee kuréel yi nekk ci melokaan bëgg gi mu ko bëgg daf ko daan tàggale ak sago jàng nañ bis xaside yi di jàng ba yàgg mu génnal boppam xëpp leen di addiye delluwaat xëpp addiye delluwaat xëpp ba muy ñett yoon wu jëkk dane ma sàmba mu ne ko mbakke mu ne ko nii ñii jàng yàlla bégg na ci ñoom ñaareel mu ne ko ñeen ñi bàng yonent bég na ci ñoom ñetteel mooy ñooy jàng sa borom ne bu leen neexee danañ dem àjjana bu leen naqaree dem àjjana ngir bëgg giñ bëgg mu bëgg xaside yi ak jàng gin koy jàng guddi gii kii ma saa ñëw moo daan teggil boppam lenn ca kaalaam ya di jéggat di sottee gëtt yi sikki yi gën a seer mu di ko sottil nit ñi mag ñi xéewal yi wet gu nekk ñu koy bàyyi ko fu ne muy muuñ muuñam mu jekk ma nga xam ne seex Moussa Ka nee na wa dax ko yëg lu dalaam lu mu lëndëm lëndëm bu suñ Tuubaa ne kang day mel ni fu ñu tàl lampi patafoor leer nag ngir bëgg gi mu bëgg alayhi salaatu salaam mag ñi di yëkkati ñii di jàng gës bu ñii di jàng mawaahibu ñii di jàng muqaddamaat ñii di jàng barzanji muy bàggante ci digg ba leer gaak jalaat jaak jamaat ja xéewal yi muy tibb di xëpp wet gu nekk di am te xaside yi li daaj yi di bari bari xam ngeen ne xaside gii daaju mawaahibu bii nga xam ne moom la waa Daaru Xudoos yi daaj sëñ Tuubaa bi sëñ Masamba bi mu ko jàngaloo mag ñi sëñ Tuubaa dana ko Masamba foo déggee loolu mu ne ko damaa dégg ku baax ne ci kees yi di ko waxantu mu ne ko ku baax kooku mu ngi ko dégg ci jigéenul xóorul ay nii kon gis nga ne xaside yi cër boobu mu ci am boo gisee bu ñu tuddee xaside tudd gàmmu tudd Seex Masamba xoola melokaan yooyu tey boo demee ci Daarul Muxti kañ lañ tàmbali woon màggal ba sëñ tubaa joxee ndigal maam Thierno mu sañ ci daaw bët bu set guddik dibéer gu jot danañ danañ taxawee ngir dundal gàmmu noonu la doxee nag ci bu ne xasida yi tey kuréel seex ma Massamba wala nangu Cheikh Massamba sëñ Moustapha Xasaayit moo ma nettali nee na sëñ bi daa mas a dégg ku jëm ca wetu kër Cheikh Ibrahima Fall ga nee na di jàng di jàng xasida yi salli ala lay seen safa nee na sëñ bi génn na ci xaal kaala gi fii la ko takk ca kaw na wal leen ma ma sàmba ne mu ñu mën ko jëmm daa jaar fii wuti kër Ibra Fall ma dégg ko muy wax loolu ko ko wax mu ne ko Mbakke yow a mu ne ko noonu na dañ ma ciy jiitu ma bëgg a jaajuwaat te defe naa bu dee dégg sëñ Touba sëñ Massamba ko gën a dégg Serigne Touba taxaw na ci njaareem di julli di tari Fatiha ca kaw bi mu ne iyyaka na'budu dana bëreet di dox ci mihrab bi sëñ Massamba ko yóotu xëcc mbubb mi ba sëñ bi jël si waat taxaw ba mu sëlmalee dana ko ma sàmba mu ne ko Mbakke mu ne ko bi ma nee iyyaka na'budu dama damaa wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqim damaa jàpp ne saadaa taxaw sama boroom jël siraat gàcc ko jahannama ma bëgg a jéggi jéggi leen bëgg a jéggi sama ginnaaw te juddoogul kooku bu dee julli koo mën a julli kon tey bu ñu toogee ci jotaay bii xoola jagle yooyu melokaan yooyu te Serigne tubaab benn yoon mas naa def déclaration bopp sëñ Malick Ndiaye la ne ko wëral njéeréem gépp na kuy jox joxal ma sàmba kuy wax waxal ma sàmba boo gisee sëñ ma sàmba ak këram amuñu nekkuñu mooy sëñ Tuubaa moo ne maa leen ma sàmba himmatun si waa himmat yi ma sàmba amul jenn yitte ju may sama jot laa dan ba amul bakkaar moo tax boo xoolee fii jamono toll ndake jafe-jafe yi ak coono yi buñ xamoon kuy dëgg-dëgg sëñ bi duñ sonn sëñ ma sàmm nee na walaw daral xalqa ilmal xaybi min ka la kaana kulluhum fil huna wal fadli yàlla bu ñëpp xamoon li fi yow kenn dutu sonn ñëpp ay na ca kaw umpale sëriñ Tuubaa tax dang-dang yeeg coono yi bari wutal ko moroom di ko gàngalle di ko foyee loolu coono rek lay jur intiqaamul ilaahi lay jur merum yàlla te yàlla buy taw ku bëgg mu taw sa kër ku bëggul mu taw sa bu xëtam di rek noonu lay mel ka tooñ ak ka fekk tooñ gaag ka ca war a wax ak ka ca waxut ak ñëpp bu xëtub yàlla bi dal ñëpp lay jar ndax yàlla addisul si ku noonu sama wëllu yi déclaré na la guerre xoola ñooñu dayoo bi leen yàlla jox ak cër bu réy boobu ñu am kon ku am lu mel noonu di ko dundal xam nga ne am nga cër bu rëy bu la yàlla jagleel muy dund sëriñ bi ak jeex ci ak jox suñu lépp mag ñi mosuñoo sikk sàkk ci sëriñ Tuubaa ci dara mësunoo werante ci dara lii nuy gis ci xasida yi yéen gisutu ko raw yéen gas suul yi sëñ bi wax ne dañ koy denc ba ëllëg ak yi ne Tuubaa gii boo demee ak njëreem gii sëñ bi ubal ko boppam denc la ko te santaanul kenn jàng ñaata xasida la Seex Masamba suul Daaru Karim ku ko gis ku xam la ca nekk ñaata la dee la dénk sëriñ bi ñaata la ko sëriñ bi dénk génne loo ko ak loo xam ne da ba mu génn jëm fenn kon bokk yi doy na sëkk ci liñ am ku ko xam doyloo ko nan doyloo sëriñ Touba te di ko gëstu te wóolu ko te ku ca yoon nekkul nga màndu ci loolu lu yomb la lu simple la yàlla sax am nañu ko gëmut kenn reyu leen ndax laa ikraha fi diin xata bayyana rusulu mina l-ghayy amatul force kenn kum neex gëm kum neex ba Serigne Touba wenn arafam ka gën a bari xam-xam mënu koo lijjanti fa fi kulli baytin min nidaamika ibra ab yaxalam ab bindam ab sosam koo xam ne nee na ci lawhul mahfuz la sama mbind di bàyyi koo xoola ba mu bindee xayru jamil alamin ahmadu xaddamu alal baraya samadu lu tax ibnu malik ñëw sëñ bi nosee ci diggante laa ilaha illa muhammadu rasulullah kenn mës ta wayee biir bayi génn na ci dayo borom bi subhanahu wa génn ci dayo bi rasulullah xayru jamil alamin ahmadu xaddamahu kon bari na ku jàpp ne nangam li tax mbindam naqaree dégg ku ñuy wax maam Serigne Sill maam Serigne Sill mooy way juru sëñ Mahmoud Sill turendu la sëñ bi dana ko kaay ma firil la sëñ sayyidina maqdumuna muhammadin wal ali wa sahbi rijaalu samadi daan na ko rijaalu samadi mooy malaayka yi teewoon badar na ko karril bayt mu baamtu ko mu a ko defal ibaadu samadi daan na ko ibaadu samadi mooy ñi teewoon badar muy nit ñi ak malaayka yi daan na ko maxdumuna gii laa la bëgg a leeral max duumu naa ñun buñ koy tekki li ñuy wax kon ca yonent bi ki ñuy liggéey rek lañ koy jëmee mu ne ko maq duumu naa gii laa leen bëgg a leeral na ko bi ma nekkee ci géej gi damaa egg ci bëgg rasulullahi ba bu moo mosee kafe suukar si du saf moo mosee warga suukar du saf wa jaa ani bi kalimatin xad istaxraq ilma zahiran wa baatinan keroog rasulullahi damaa feeñul boppam wax ma baat bu man suuxal liggéey bi zahir ak baatin dane maa ataytuka hadihi l marra illa lu ushrika yaa qadimi bi annaka ahabu min saati nafsi jërëjëf nee na yonente bi dana ma sama yoonu tey wii dama ñëw di la xamal ne yow mii laa gën a bëgg sama bopp jëf ku mën a tekki loolu kon boo doon tekki nan maqduumu na li sëñ Tuubaa côté ci bayitam foo koy déggee foo ko xamee mag ñi ko xamoon ñoo mel noonu ñoo mën a dégg loolu am na ku mas a toog ci kanam Sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa jox ko mbind mu di ko xool ba yàgg luxaa geeg laqatug bayit yi yéem ko mu jekki-jekki ni sëñ bi xanaa daa mel ni bayit yi di ko ko bëggoon ne ko ko jubbanti Cheikh Ibra Fall na nit ci put gi bës ko na ko ah, doom dama seeti li nga war a wax kii du kenn du mbindam fi ne kam ne nit put ga yàlla da ko caa may fattu boo xam ne lu sëñ Tuubaa bind mu xam ko mujj mu di sant Cheikh Ibra Fall ba di jox addiye kon nag li nu am nañ ko xam te kenn ku nekk fexe ba doon défenseur bi mooy kenn du jaare ci yow yab sañ bi nañ defar suñu jikko defar suñu jëmm ba ku nu gis xemmeem nu waaye defar suñu jikko te bañ a rax ak taalibe dara jaru ko barke xaadim rasul lu jar kooj ak taalibe amul lu ñuy moderniser baaxul lu ñuy changer baaxul lu fi mag ñi amoon ak taalibe leen ko may defe naa bu ñu tuddee ak taalibe tudd alaaji Ndaama Fall war nga cee mën a xam dara waxuma la kër Seex Masamba gi mu féete woon waaye mboolem ahlu murit ñëpp am na seen ngërëm képp koo ci wéetal da ngay defe ne moo nekkoon buntam koo ci waxal da ngay defe ne moom dong la séqal teraanga koo jaxasoo da nga moom doo nga yëfam ñëpp loolu mooy ak taalibe bi mooy da ngay féeteeg ñëpp da ngay féeteeg kenn warmal ñëpp ak taalibe bi kenn du ko soppi te kat njabootu Serigne Touba gi ku la leen gën a waggar gën laa am barke dégg naa barke dem sëñ Mouhamadul Mamoun moom Serigne Fall wax ne yab sa kilifa day xañ a barke sàllawlu ko rek day yabe day wa wañ xañ a barke kon nun fu ñu jëm ginnaaw sàllawlu sa kilifa day xañ a barke saaga ko nag xas ko nag critiqué ko nag léegi benn sëriñ ngi métu wax ku sëqat ñu ne daa xumb nga ne cell bañ a sëqat ñu ne ni muy naje sëqatam gi baaxul nga gestu ñu ne wërta gestu léegi dañ lay orienté au lieu ngay wax ñun ñoo lay wax kon nag maa ngi leen di balwaq ginnaaw niñ ko waxee bis bi ñu ko bokk dafa bari te nun ci lañ bokk ay yoon yoon sëñ Mahmouda noo ngi lay sant bu baax sëñ àll yu Mbay mii ma doon waxtaanal léegi ci biir maa ngi koy nuyu sëñ Modou maa ngi leen di nuyu baax booy dem fi bërëb gëstu histoire dafa baax wax naa ko sëñ Aliou léegi ndax bu naan Touba Fall ngay ñëw nekk ab conférencier ñu bari xam la ci yoon wi war ngay laaj histoire bu lii nu mu demee sinon yow gànn foo gàmmoo nga ne Touba Fall ñu ne fuy Touba nga ne Touba Fall xamoo ci dara moo tax bi ma ñëwee ma ne sëñ Mahmoudan wool ma ku ma leeral man ba ma xam fii way ñëw lu mu doon ndax duñ ma damay ko ma ko laaj ëllëg man man a yàjj yaa jaaral waaye loo gis rek am na lu ko waral moo tax ñëpp a yem foo dégg ko koy wax am na ku la neexul ñëpp dégg mu wax ko rek am na ku la neexul waaye lépp yemut ñëpp yëmut fépp yëmut wala fépp yemut ñëpp yemut lépp yemut am na foofu ku fa taxaw tuur ndox kenn du la wax dara waaye am na foofu ku ko fa def gis dara kon foofa ak faya yemut waaye ngërëmul sëriñ Tuubaa aw ñaas la koo dégg ñu ne mas naa nuyu sëñ bi baa moo mas a gis sëñ bi baa moo mas a jëfal sëñ bi ba at nuy tukki day feeñ ci njabootam dama am kilifa gu may waxal mu ne dafa am kilifa gu baax gu ko ma sax booba ca genn kilifa la woon doomi sëñ Tuubaa jooju daat na diw de mënta ñàkk am lu baax lu ko feeñ ci àdduna jum teg bët ndax bàyyam daa mas a liggéeyal sëñ Tuubaa moo tax ku sa maam mas a njaqal sëñ Tuubaa baa nga am ku mas laal sëñ Tuubaa dana feeñ kon dëkk bi ndigalu sëñ bee ko sanc Touba gi bi ma koy dégg léegi Baye Aliou daf may wax lu xoromu mu ne waa dëkk amuñu xaalis de ngénte ko ko Touba xam nga léegi da ngay dem ci sëñ ba ne ko ñoo ngi dëkkoon dëkk bu tudd nangam léegi ñu def tuubaa nangam bari na waaye tuubaa gii sëñ Touba ko tudd moom. kon xam naa yaakaar naa tu ginnaaw sëñ Touba ko tudd Touba gu koy mag gu dul gee dana jafe léegi nag kon. dëkk bu sëñ tubaat joxe ndigal nañ ko tuddee sama dëkk bu sell ba Touba joxe ndigal ñu dàkkante ci sant wii muy Fall muy Touba Fall ga ca Mbexoo te sëñ bi li ngay xool boo demoon ci Kajoor wala nga xool ci nangam moo leen mag mu mas a bàyyi koo fa nga nekk fekki sëñ Touba boo delluwaatee da lay digal na la dandal dëkk ba nangam sañ sanc foofu day mujj foofaay doon dëkk ba te mag mu ma sa fekki Serigne Touba boo ñibbee léegi-léegi dañ lay reetaan naan kii kat amul lu mooy aw yat wenn yat la yor maanaam dem ñibbi si tukki bu yàgg bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi amoo dara di la reetaan mujj sëti ñi ngi fi bàyyi woon ñooy bayal sëti ki demoon loolu waral Jóob di yaakaar Jóob Njaay di yaakaar Njaay Faal yaakaar Faal lu ko waral Faal mi demoon ci sëñ bi day gën a foor mi toog mënuñoo yem yooyu nag lañ bëgg a yemale léegi naan ñëpp benn maam la ñëpp jenn maam la d'accord waaye ki dem ci daam mënut a yem ak ki demut ci wata yi moom ñëpp a tege ci APS bi waaye nag am na yu gën a gaaw gën a cher teewul nag ñoo bokk fu ñu jëm waaye ki dem jaayanteeg Sëñ Tuubaa jox ko sa bopp du caaxaan loolu it ku nit da gis ku rawee dara nga defee ne pexe la xam nga Sénégal koo jiitu daan daa yori bagage moom gëmuñu ne yàllay dogal moom moom boo boo boo mënee waxtaan mel ni sama rakk jee Saliou Seck dangay ngay jóg ne booy bi démb la génn xamu koy sang maanaam gëmuñu ne yàlla mën na dara <laughs> bu doon ay béjjën rek am na ñooñu lañ takk bu soobee yàlla kenn du bokk ak ñoom réew waxu bala gox waaye ak yëngal fuur yi liñ ci yor nga xam ne bidéel yoo xam ne bu ne ngay yëngal gajang ba mu yëngu bu ci mi ngay laal waxtu yeeg yooyu yëpp gëmu fekk la ka ka la jiitu lam la jiitu du lool mooy ku ma sa jëfal Serigne Touba moo tax ma doon laaj sëñ Mahmoudan ñoom ñi sëñ Alioumé ku màndu la ku baax la gis nga histoire nit bu koy nettali da nga cay booleeg màndu loolu lu am solo la kon dëkk sëñ Touba joxe ndigal ñu sanc ko ku liggéeyali Serigne Touba kon li ngeen di def dundal yëfi Serigne Touba la waaye nag tey nit dana am ku baax ba noppi wane ginnaaw kooku yeefus ñam fa bàyyi yeefus loolu moo indi tey boo tuddee Touba Fall njaboot gi yëpp mel noonu alaaji ndaamay yàlla may ko ci jagleeg boppam goo xam ne tey ak relation ak jëfam ak njàmbaaram akuk dogoom am na fu mu yóbbu turu dëkk bi waaye bu mënoon na fee bàyyi ko bàyyi fi njaboot goo xam ne nañu war a doxee duñ ko sëñ daan jërëjëf ñëpp ñaanal. ak mboolem ñi nga àndal ak ñi nga bokkal dëkk bi ak say rakk ak say kilifa yi fi nekk ak ñëpp rek yàlla nañ ñoom même maase ñaanal la ndax yanu mag ku ko yanu boo amul ndimbal saw doxin mën naa diis te kat foo tourné ñu ne sa bàyyee baax ab coono mënu koo weesu sa bàyyee baax guy dëgg ñii toog kenn mënu leen a jënd fi ne ba bañ fiy jógee suba lu waaye wax seen maam ak ñoom ñii la ko seen maam wax maanaam boo nee xasida nangam lu mu neex neex ci yorente bi ñoom la ko seen maam ba ba ba sëñ bi joxee ndigalul ñu sanc dëkk biit seen maam la wax ne mooy indi cër bi kon tey bu buñ toogee fii bàyyi seen dëkk bàyyi seen i taalibe bàyyi seen lépp ñëw fii loola sàmm ak suuxat li fi nekkoon la kon lii lu am solo la man gën naa cee bég bu baax a baax naa ngi ngeen ñaanal it sama sëriñ bi sëriñ Bachirou Mbacké mu gudd fan te sëñ Modou Mokhtar man dama ko mënta fay ndax ñàkk la ñëpp gën a ragal ñàkk te man damaa ñàkkoon ba mu ne su ko supporté mu ne ma bis ni ki tey génn nga ci way ñàkk yi xam nga loolu dafa garaaw mënoon na ko wax ba nopp may desee di kalkalang mais loolu gan na bis ni ki tey génn nga ci way ñàkk yi duutoo dellu ginnaaw xam nga ku ñu ko wax yaay xam yow génn nga ci ñàkk wala génn ci ñàkk yaay xam procès yi nga song man nga ko wala mënoo ko yaay xam li nga réalise ñàkk ni méttee man nga da nga gudd fa nag yàlla nga dem màkk ak yooyu yëpp waaye bis ni ki tey tàggoo ngaa ko ñàkk man mënumaa fay sa baay loolu ku la ko defal foo koy fayee ci àdduna sama sang boobu kay bu ma ko gisaatoon xam naa dama ko ne li may wax seen bàyyi dama ko bëggoon ngir silvise ga waaye xaw ma ko woon ba di ko gëm at yu mujj yi rek lañ féeroo maak moom mu gel matuma tuuti rek mu sol ma ko ci moom laa gisee kooku dangaa ñëw nuyu ko moom sëñ maxtaar mu ne ma gànn fekk damaa ñëw sëñ Abdou Samad mu sëriñ Chouaïb bi waa kër sëñ Tuubaa ñu ma taw a gar lañ cay ku xamul damaa ñëw nuyu sëñ Abdou Samad ma xool ba yàgg mu ne ma dangaa yor soxna sant Mbàkke man na ko déedéet mu ne ma damaa gis deret ku sant Mbakke daw sa yaram yi maa ngi Mor Gueye ànd ak sëñ Daaru Jéey mi ak Mara Seck ma ñëw Daaru mën naa nuyu sëñ bi mu ne ma naa la sama doom bii maam jaara lépp ci benn jotaay bi la maanaam kii timis ma dem ci sëñ bi sëñ wax ma lool ba noppi na ma ngir ma dalal sa xel xam nga boo ma ma fu ma ko dëkkal sëñ bi ne dënn ba yàgg mu ne ma sëñ Tuubaa nee na këru Tuubaa gi étage lay doon nangam lay nga door a am nangam nam ma ko waxee nii sëñ bi man dama naan defal damay ñëw soo mu ne ma oto bu mel nii nga war a am bii sëñ bi waxu ko bii lay doon bii bii moo tax kuy ñàkk gëmu sëriñ gànna bokku ci ab sëriñ ñaar a koy xam ku ko jëfal ba mu gërëm la ak ku ko tooñ mu yàq la accam bari na ko doyee di koo xam ne saa yu yéegee wàcc acam a ko ko yóbbe acam moo ko ko yóbbe te te mën naa am sëñ Modou man ab taaram ak meloom rek laa jàppoon ci moom ah. waaye sëñ bi ñàkk ni mettee ku la ci génne man xam naa génn naa ci wala génn ma ci xam naa xamal naa ko son ku ne yow yaa xam sa bopp waaw waaye moo tax bu ma sëñ bas mii melee nii mu mel xëccoowul dara doxul ci lenn yar ak teggin ak woyef ak fonk ay kilifaam ñun suñu xol dafay sedd moo tax at mu jot ñu bàyyi yitte yépp ñëw wuy si la moom xëccul dara moom ay kilifaam yi da leen fonk bëgg leen te sëñ bas ku ñàkk kañaan la ku ñàkk problème la ba maanaam bu ñëwee boo ko fekkoon dara mën naan da nga demee sax doomi sëñ Moodu amul soxla ci yii nit ñi xëccoo wala dara moom yoonam moom na ngeen def ku mu gis may la jàmm ak salaam moo tax yàlla sa jàmm yàgg na ngeen ma balaq euh, jërë ngeen jëf sëñ Moodu sunu xol sedd na bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu